Hey. toujours dans votre acte du jour de ce 18 octobre 2024 ginnaaw nak fi mu muy faut Dakar Arena Dakar Arena nak bokk ci réalisation yi nga plan Sénégal émergent mon tek mom mi toogoon ci plateau yi ne plan Sénégal émergent mën nañ ne plan Sénégal mais du mës émerger émerger kon waron na jomba tay di wo ay ndawam fofu pour vous révéler vous ci li nga xamanteni ni Macky Sall mom moko ko ginnaw ginnaaw dal ki di Abdou Mbow tontu nako ko nañu dem déglu ci réaction Abdou Mbow ginnaw appel bi nga xamanteni mom mi di leader du parti passif le politicien les

waaye yow loolu lépp nga fekk ko ci réew nga ne réew mi baaxul réew mi dafa fënax foo laal day metti ñoom instant yi utiliser fonds yi ñuy utiliser ça vient de de la LFI bu ñu voté mhm. fonds politique yi ñu doon wax ne dafa xaraam mhm. tey jii dañu ne xaraamatul dañ ko bëgg a ngéntewaat tudde ko fonds secret mhm. yow nga defee ne loolu yëfi nit la ak waxu nit la koo xamante ni nit koo xam ne bëgg naa jub jubal jubal je pense amul benn rupture parce que duñu jël xaalis réew mi mais ñoom mais attends mais dañuy jël xaalis réew mi parce que problème bi mooy tey jii mhm. nga nommé plusieurs chargés de mission à la veille d'élection mhm. ñu nekk ay jeunes de ton parti ñooñu lan la ñuy liggéey loolu du jël xaalisu réew mi ñooñu bokkul ci yuñ nommé waaw déglu ma non attends non attends non attends non non non dama lay expliquer xam nga ñun dañoo wax ne nangam dafa baax ñoom dañ dafa bon nit te boo waxee ne diw dafa bon diw baaxul wala nangam dafa xaraam mhm. da nga koy bàyyi mhm. parce que bu fekkee da nga jiite réew di wax loo xamante ni du dëgg il faut nit ñi ne kii kat li muy wax du dëgg wala ngay am comportement yoo xamante ni comportement loo xam ne c'est en

plan bu bon la amul vision tay yow fi nga xamanteni amuñu foon vision fofu nga jël say ndaw dal di len fay yóbbu barki dem bi ngay présenter sa projet manam fofu ci centre de conférence international Abdou Diouf ba Diamniadio fa nga leen yobbu alors que loolu yeb dafa bok ci réalisation plan Sénégal émergent muy vision Macky Sall kon Macky Sall su amuloon vision est-ce que di nga am bërëb yooyu pour defee ko fa donc je crois que sénégalais dañu war yewu jëmele ko ci kàddu yi nga xamanteni yank ko doon yëkëti dembu jëmele ko ci lool dex ci doli lepp lo xamanteni dal ay fonds spéciaux la nekkon fofu ci palais ak primature ngeen né dafa xaraam tay ngeen ngeen bëgg soppi def fonds secret foog ni mën ngeen nax askan bi je crois que da ngeen war a amaat del soit à la raison xam ni que lepp lo xamante dal moy sen seen wax te dara taxu ci won lu populisme ak manipulation loolu mo len rattrapé te bépp sénégalais bu len gis tay ngeen di dem Diamniadio di dem Dakar Arena war na poser wu question ni est ce que sen ngor waroon na len may ñi dem ci li nga xam plan Sénégal émergent moko réaliser réalisé ndax Macky Sall su amuloon vision tay di nga wo say ndaw Dakar Arena wal do len wo Dakar Arena en tout cas question bobu lañu bëgg nga jëk ci tontu bés bo rassembler suba le 19 foofu foofu ca Dakar Arena.